bo de ki jang alxuraan lañuy wo woo suñ demee ba xel yëpp jaaxle ki jang alxuraan lañuy wo ta te Sénégal rek ngay dem ci dëkk ndax man dem na ci dëkk village bo xam se ni dañuy fayloo sa dom bi jang alxuraan 1500 oustaz bi daw di dàqante ak yow te do fay te fii rek nga gis ngay inscrire benn nit ci ay école di fay 80000 francs wala 50000 francs te boko ko deful doo nelaw da ngay dégg yoon sama njàng dom fayeeguma ko te toujours sa yoko ko xamal ne français la mais du alxuraan kon nag ñu xam ne li nga xamante ne booy njëkk moom ngay dooree te booy mujj moom ngay yóbbaale nga lawaay nañ ci fas jom te am ci fulla te xam ni mooy suñu mbégte fii ak fa ñu jëm ndax képp kuñ fi yaakaar ba topp la alxuraan moo ne moom lu mu am moo ko may commencé bar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nee na lu ma am ci alxuraan laa ko jëlee mbégte mu mën am rek alxuraan moom moo ko jox kon loolu yaakaar nañ cee war a fas bu baax a baax suñu fulla man nag Zik FM am naa ci ay baat yu ma ci joto jàngate ndax Zik boo xoolee siin gi dalay génn ci sikk nga xool liif gi mu génn la ci iñaan nga xool kaaf gi mu génn la ci kéefare kon loolu dafa naa ne bokk na ci li nga xamante ni waras na cee jàngate bu baax ndax nag ñooñu seen rajo bi ñëwuñu rek comme ci lii lañ commencé ñaata nit lañ fi jàppale tey ci dund ñaata nit lañ fi jàppale tey ci fi nga xam seen fi ngay fanan wala fi nga nekk nga ñëw jublu ci téere alquran bii nga xam mooy téere suñu borom bi mu wàccee ci yonte bi sallallahu alayhi wa di Seydina Muhammad nga xam ni képp kuy roy rek moom mooy sa royukaay tey ñu teew fii di ko magal li ma naqari mooy dem gi may dem nii nii ni ma sañoon dama fi toog ba mbir mi jeex ma ànd ko ak ñoom mais nag dafa fekk ni boo nekkee ci ab liggéey doo mën a bàyyi loolu ndax dañoo war dem si àll bi pour charger ji yenn bagage yi waajal korite gi suñ mbokk ñu mën a dem ci pomme de bi ak soble bi loolu nag ñoo ngi ciy bég bu baax di wax rek suñ Moussa am na lu ñu jotoon a fàggu def ko barkeelu bii ñu jox ko ñi nga xam ñoo organiser mbir mi am na beneen enveloppe boo xam se ni defoon nañ ko pour ki nga xam se ni yàlla def na mu jël pie ñu jox ko tamit bii mu barkeelu ci. noonu la ko waxee woon noonu la ko defee. kon nag mbégte la di ñaan nag suñ borom yokk lii ba dem ba naan au niveau international la yokk képp ku fi teew. yokk ñëpp ba enveloppe bu ñu fi indi ñu koy ful ndax lii dañ koo def royukaay ci ki ñuy wax Senico ko ndax li muy def ci alxuraan bari na ay milliardaires yu fi nekk yu ko ko gën a mën foofu te defuñu ko moo ne pourtant foofu la gën a waree de moo ne li nga fay dugal wallahi du nax saay ak foo mën a dem dala fay fekk waaye nag dama yaakaar ne xol yi moo jotagul a ubbeeku normal ñuy ñaanal képp ku ci sa xaalis duggul yàlla na yaa suñ borom dimbali ba nga mën ko cee dugal te képp koo ci dugal yal na yàlla yokk la ba nga dugal ko ci du dugal xaalis nag moo tax ñu naan ñu sant la ndax ki amul te am jotaayam wala ñaqam du ko fi tuur moo man fopp ki ko ci dugal kon ñu xam ni bu kenn xeeb dara muy teewaay bi muy organisation bi muy ustaas yi nga xam ñoo yor micro bi ñoo ngi leen di sant yéen ñi nga xam seen tamit yéen a yor enveloppe bii desu ci yem ku jël tamit deuxième incha allah rabbi joxe naa la bu ñu paree nag ma woo incha am na lu ñu ko waraloon yal yàlla def jàmm jërëjëf ñu siyaar ñëpp merci. jërëjëf waaw bisimilah oustaz. jërëjëf. Ah. Ali Ndiaye président ni mu ko waxee woon noonu la ko defee noonu la oustaz wax. filière des oignons. koo xam nitu dara la. Mhm. di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ci teraay bi. Mhm. Mhm. àdduna moom loolu rek moo fi nekk alxuraan daal booy def. na nga def fii fii jihaadi fi sabilillah. loolu rek moo nekk loo xam ne lu am solo la oustaz. président Allé ngi noonu. jërëjëf. di président filière des oignons. ku nekk gis nga korité bu dee jub ay la la wala tabaski. Zik FM gis nga ni nga xamante ni ay jumeaux yi si la ñuy taxaw di séddale. pomme de terre yeeg oignon yeeg bagage yi moom mii te rek tax boo demee rond point euh, nu mu euh, jaxaw marché central dal oignon walu wàllu sobleeg pomme de terre moom bàyyi mom la wara a fàggu ci àll moo tax toogaay mënta am dañ koy teel a yow ndax suñu njariñ la bu dikkee si askan day kon ñu ngi lay sant bu baax di doomu daara nag ndax ba muy yëkkati doomam tu tànkam di ko yóbbu daara dañ ni kii dafa waane ndax mënu ko ndax boobu xam na ne amul sax lu mu mën a a faye waaye yàlla doom waxuma njaboote boppam waaye yeneen njaboot yoo mu ngi leen jël di leen yóbbu daara te ñëpp a ngi Tuuba fa tabaarakàlla kon dañ lay sant ndax doomu daaral ñoo bokk ñoo bokk dëkk kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla yàlla fay la xaaju bismillah kon uh, jërëjëf uh, El Hadji Moussa mm. rafet na bu ko defee dañuy continuer li ma gën a bégloo mooy ni na mu ko waxee woon noonu la ko defee beneen mbégte bi ci am moo di euh, ni nga xamante ni noonu la jëlee responsabilité am ci première bi noonu la tamit ne ñeneen ñi nga xamante ni noonu la ko diggee woon ak tamit noonu lañ amee seen yéene yàlla na borom subhanahu wa taala matal yéenam bu ko defee soxna Ndeye Khady na nga préparé su taree ba pare incha allah mën nañ lever séance bi ñu dem julli doog ñëw mais nanu bàyyi ba xale bi tere bu nu jógee foofu rek dañuy continuer enchaîner ni mu tëdd direct ñi nga xamante ni nag julli ñu bu ko defee mën nanoo toog ndey xadi bismillah tafaddali mashkura faddali ah soxna ndey xadi sall waa kundaan takbir waaye xale yi may leen ko doole waaye takbir <laughs> jaarandi jëlal micro jaaral si peñu jàpp takbir doomu kundaan la de takbir faddali بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله hmm. الفطاح العليم قل أروني الذي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونظيرا ولكن أقصر الناس لا يعلمون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه شاعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا للذين استضعفوا أن نحن صددناكم عن الهدى أن نحن صددناكم عن الهدى بعد أن نحن صددناكم بالهدى بعد إذ جاءكم بالحق بعد إذ جاءكم بالحق أن نحن صددناكم بالهدى بعد إذ جاءكم بالحق بعد إذ جاءكم بالحق لو كنا مؤمنين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون شاعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا للذين استدعفوا أن نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بعد إذ جاءكم بالحق لن نؤمن بهذا القرآن ولو ترى إذ الظالمون موقوف أو ليقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم تكبير ما شاء الله تكبير ما شاء الله أحسنت أحسنت يا نال لبرم سبحانه وتعالى دفع التوفيق يا نال يا لا soxna Khadija Sall mu nekk loo xam ni lu am solo الله jigéen boo xam ne yàlla da ko nattu mu alxuraan nekkam ci dënnam sas muy tari alxuraanul karim yu tedd ji macha allah loolu vraiment contentement la bu baax a baax a baax oustaz wax nga ko sànq su ko defee dañuy pause foofu rek ñu dem julli ñëwaat ñëwaat li nga xam ne moom mooy oustaz ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, si programme bi oustaz Birame Mbengue uh-huh. su ko defee rek incha allah. kon. Uh, mi ngi noonu rek oustaz di wax ne rek programme bi day wéy ni suñu jullee ba pare rek incha allah ndax des na yeneen candidat yoo xam ne ñu ngi fiy toog su ko defee incha allah buñ jullee ba pare rek ñu ñëwaat li nga xam mooy ci ci jotaay bi kon donc rek ñu leen wax rek ba ci kanam incha allah rabbi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu ñi nga xam mooy sama sama FM Zik FM Thiès wala ñi nga xam ñu ngi def 3W sama FM ñu ngi ne wax rek incha bu buñ sa seen poste rek. ñu ngi ñëw léegi rek incha allah pour continuer li nga xam mooy programme bi jërë ngeen jëf waaw ñuy julli préparé nañ fii si biir salle bi fu ñuy jullee mën nañoo bañ a sori ci biir tamit toilette yi ma fa. ñëpp a ngi fii nag.